déjà je suis très content et ça me va droit au cœur tey exposition bi dañ ko def mën ak Kumba aar te moom ma soññ sax moo ma ne tey il faut que ñu def exposition il faut que ñu def exposition d'accord ma wuyu si ko ñu def ko ensemble donc euh, aw ma fay am tamit parce que loolu art artiste dafa war a ubbeeku dafa war a gëm ni que lii lu muy def nii dina ko réussir dina ko def donc artiste warul xool ni ngir xaalis tamit euh, tey tey ma ma exposé ma am ma am ci xaalis non artiste toujours dafa war a gëm boppam ni que liggéey mooy indi lu nekk dafa war a gën a liggéey pour mun a am lu mu bëgg dans dans dans sa dans sa carrière moo tax tey je je n'ai pas remercier qu'à vous féliciter ni ngeen ñëwee nii même bu fekkente ne ñaar ñetti nit ñoo ñëw damay gën a kontaan parce tey un artiste comme Grand Grand Tia et d'autres aussi vraiment bu ñu ñëwee la c'est une fierté pour moi et pour toutes les autres artistes donc euh, maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant. donc euh, ce que je vais vous dire en tant qu'artiste nañu gëm suñu bopp artiste dafa war a gëm boppam gëm ni que il va réussir il va s'en sortir il faut jamais dire que non je ne peux pas ou bien non c'est pas possible. il faut toujours persévérer donc euh, loolu mooy nit même bu fekkente ne du aar sax liggéey boo mënut a def da nga war a wax ni que bul hésiter da ngay wax ni que oui je vais réussir dans ce que je fais c'est rien n'est facile dans la vie quand tu dis que c'est pas facile day compliqué day naan fii waaw man lii il faut ma def ko il faut ma def ko donc euh, loolu mooy suñu war a gal il foog que ñu jàppante euh, gëm suñu bopp gën a góorgóorlu pour mun a atteindre suñu objectif euh, d'artiste. merci euh, pour euh, seen taxawaay yéen ñëpp ci expo bi je suis tellement contente. Euh, Kumba ndaanaan la ci ci ci art bi elle est elle a elle a été première dans sa promotion elle a été première donc dara jaaxal ko ci ci art bi elle est brave waaye ñun jaar nañu jaar nañu école Beaux-Arts. jaar nañu école beaux arts mais génn nañu on fait partie des cinq premières de l'école aussi euh, moment boobu tamit euh, on était tellement performant dans ce qu'on mais moom tamit euh, ñëw na tamit fekk ñu fekk ñun ñu gën a mais moom tamit il a elle a été vraiment extraordinaire aussi. bi ñu gisantee defe naa ci parcours ban année la. Blaise Senghor fekk mu doon exposé foofu biennale bi passé malheureusement biennale amul 2020 mais biennale ñëwaat na. on s'est rencontré euh, déjà pour euh, euh, dans le monde de l'art, des arts plastiques contemporains africains. Et également, euh, je, développe également un projet autour de la photographie. Et donc, je sais à quel point c'est difficile euh, de se lancer euh, dans ce type d'entreprise. De, et donc, voir une belle exposition dans un lieu culturel de Dakar, euh, c'est voilà, un premier pas vers euh, quelque chose, à mon avis, d'encore plus grand. Voilà, Donc, euh, c'était simplement voilà, pour te féliciter et pour féliciter aussi euh, Koumart, <laughs> qui est très timide mais très talentueuse. Voilà. Je me suis dit rek euh, mën nga cee jëriñu ah tey jii suñu présence nag Lamine moo ko waral mu doon nit ku baax ku yaatu xam nga ku bëgg nit aussi li muy def tamit lu doon lu am solo loo xam ne mën na jëriñ ñëpp ci àdduna man pour man aar doon na loo xam ne mën na dundal ñëpp ci àdduna parce que lu yaatu la ñun ñi depuis dañu juddu ak moom di màgguwaale ak moom j'espère que tamit dinañ dee ak moom te balaa ñuy dem aussi dinañ fi bàyyi loo xam ne ñëpp dinañ ko mën a jëriñoo muy ñu juddoogul ak ñuy judd ba pare ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk actuellement. Euh, Lamine Bayo aussi quelqu'un qui est vraiment euh, effacé qui est humble quelqu'un de très bien et de courageur de travailleur il travaille plus qu'il dort ça je le témoigne parce que a parcouru le Festival Miroir International de Dakar Plateau que j'organise tous les, tous les ans. Et j'ai un membre de ce festival et je, je dis ici que Lamine euh, waar bi kenn du ko ci ëppale lu muy béy festival su ñëwee kenn du ko ëppale ci lu muy li ci liggéey bi c'est quelqu'un qui travaille sans sans gêne qui n'a pas le complexe d'affronter une démarche artistique ni un thème tout le temps on fait des choses ensemble mais Lamine il est comme ça il est par il est parfait je peux dire qu'il est parfait. Maabo. Maabo jaajëf waay DK TV. DK TV.